ولله جنود الشيطان see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 Mama, hurry. Mama. leen défilé bi bi ñu xale yi war a wane incha allah ayca bismillah जब करीब सुदूर अमाम मैदान दर बिलसमा रोस जब करीब सुदूर अमाम मैदान दर बिलसमा terus jabha katif sudur amam midan darb Jalan mikorai, jalan mikorai. micro yi ilal yamin hidup. إلى الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال واو أنا نyanyi wacamun يا نانينا wacamun nyanyi wasaba يا نبي الشمال أمين واي إلى الشرق ñu dem ñëwaat ba tey àndaat ak yéen ndaxte war nañoo defal benn démonstration ba am solo ni ma ko waxee ci début ba rek alquran moo yaatoo noonu ndax li nekk ci biir quran daa bari te ñëpp mënuñoo xamandoo lépp moo tax tey ndongo daara yi jàngee ci daara ji maam xalifa Babacar Sy dinañ leen wan yennat incha allahu taala bokk na ci ndax biir quranul karim dafa am cinquante ayatul quran yoo xam ne. yàlla sunu borom subhaanahu wa taala tudd na fa alquran ci jëmmi boppam kon incha allahu taala ndongo daara yi dinañ ñu jàngal yooyu ñun ñi nga xam ne ñoo toog ci jotaay bi mooy journée di Coran bi incha allahu buñ fi jugee kenn ku nekk di nga ànd ak xol bu sedd waaye itam di nga ànd ak xol bu sell incha allahu taala xam naa incha allahu ñu ngi préparé pour ñëw ñi nga xam ne ñoo war a démonstration bi incha allahu bu fekkee pare nañ ñu signalé ma ko buñ pareegul itam ñu waxtaan incha allahu ba ba ñuy ñëw rek. ndaxte journée bi moom defe naa warul nul waruñoo toog benn seconde boo xam ne jot ay ay ay ay waxtaanu daara wala waxtaanul quraanul karim ndax ba waa ji toogee ba ci yàgg mu xool xool nekkat waa dëkk bi ñëpp wax nañ munut mu të ne du baax waa itam waa koñ bi ñëpp wax mu të ne du baax waa këram itam wax mu tëddu bu baax dafa dem ñu ni ko ibil quraanul karim moom bu waxee yow rek nga daal di soppeekuwaat jikko ndax alquran nee nañu day defaraat jikko doomu aadama waaye itam loolu boo ko seetloo ci daara ji da nga ko fiy gis ndax ndongo daara yi itam yemuñ ci jàngal leen comme ni ma ko waxee sànq waaye dañ leen di jox éducation bu ama am solo te mooy dañuy suivre xale yi waaye itam dañuy veiller ci xale yi ci lépp la nga xam ne ñu ngi koy def ak fépp fu ñuy dugg ak fu ñuy génn mursaliin alaa siraatil mustaqiim yow Muhammad maa lay giñ sa Alxuraan te dee nga nga maa lay yónni tas yoon bu jub nga nekk الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون القرآن بمين تلي إسوار وبني إسرائيل نقلن دميون أكسين ينين جي وبني إسرائيل موتاك تاي ني بومبا دوا فلسطين دفرة جني جنيني Thank you. maanaam démonstration bi ni ñu ko defee mooy aaya bu ñu tudd rek da ngay gis si biir quraanul karim muy cinquante aaya yi nga xam ne itam yàlla sunu borom tudd na fa quraanul karim ay wam mu mel ni dañuy àndaat ak yéen ba tey jàll ci beneen programme te mooy discours bi nga xam ne sunu mbokk Aminata Ndiaye ci français waroon lañu ko defal ak euh, sunu mbokk Abdoulaye jiite incha allah mu mel ni nag foofu dañuy préciser benn affaire rek te mooy daara ji yamul rek di jàng alquraanul karim yamul rek di yar xale yi yemul di leen jox a éducation yu baax waaye itam dafa am franco arabe bu nga xam ne mi ngi fi di jàngale itam ñi nga xam ne ñoo bëgg a def franco arabe loolu itam jaadu na itam ñu wane ko ngir ndongo daar incha allahu taala kon Aminata Ndiaye bu paree incha allahu moom ak Abdallah ñu jege si rek incha allahu defaral ñu discours yi làqal ñu tubaab maam làqal ñu nasaraan ah Abdallah moom itam mu làqal ñu angale ndax angale moom defe naa ñu ko fi dégg xaw naa bari lool ndax jamono ji mooy <laughs> langue bi njëkk incha allah. aywa ñu ñaanaat encore une fois ñu nekk ci ginnaaw ñu may ñu tuuti rek xaw a dégloo ndax coow la day xaw a perturbé ndax am na ñu nekkee fële sori nañ te pour ñu dégg des fois dafay xaw a jafe kon Aminata boo paree nga yëg ndànk incha allahu. les parents et Je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici pour parler au nom de tous les élèves de l'école d'Aramam Khalifa. Nous espérons que vous vous sentez aussi enthousiaste que nous à l'idée de participer à ce grand moment. Nous aimerons partager quelques, quelques, quelques mots avec vous. Et combien cette journée est spéciale pour nous. Nous voudrions en cela commencer ce, ce discours par certains des choix que vous avez faits. En regardant avec sa jeunesse désorientée, sa dépravation des mœurs, sa dégradation constante. En tant qu'enfant, nous souhaiterions de parler de certaines des valeurs que vous avez faites. Avoir guidé chez soi. En effet, même si le règlement intérieur de cette école est assez strict. Car nous ne jouissons pas d'une liberté de se donner aux loisirs, comme les autres enfants. Aller se promener avec des amis, aller au stade, regarder certains films, être auprès des parents. énormément. Cela nous a permis d'accueillir quelques expériences et de comprendre que tout ceci est pour notre bien. Ici, on nous inculque les valeurs. Le sang également les bonnes manières telles que le respect de soi et de son prochain envers les parents et les aînés. En résumé, on nous apprend à être des modèles. En ce jour, nous sommes revenus pour célébrer la première audition de notre cérémonie d'école. Et c'est en même temps l'occasion pour nous, chers parents, de vous témoigner notre sincère gratitude pour, pour, votre bienveillance à notre égard. Merci, merci infiniment. Merci, I would like to serve with you in this prayer. Word of especial this day is for our So, I went to some his speech to take or lightly will to take with you about some of the choices you have made. Looking at this current world, with its different youth, its depravity of morals its contains degradation and children. We want to talk with you about some of the values that we believe to have guided their choices. So, the education environment of this school is strict because we do not always enjoy this opportunity to indulge in leisure activity liking other children, going for a world with friends, going to the stadium when she moving, but no parents. This always adds to grand experience. To understand that are, these are for our good. From here, we receive a good education. We are those valleys, sense of Sarin. We are those a good man. To be humble, to have respect our parents and elders. We are those how to be responsible, to be self-independence. In summary, we are those to be role model. Today, we are gathered to celebrate the first edition of our ceremony. And at the same time, it is an opportunity for us, the parents, to extend our attitudes gratitude, to express our acknowledgement for all you have done for us. thank you very much baax a baax a baax. wax ko jolof ko ci wolof. seeg seeg ci wolof mooy ñaata mooy juróom. ay jë saar yi ban ban la. Fatiha. Fatiha. Anam. Këf Këfi. Fati. Fati. Sabay. tàcc la ñu ko waay. macha allah. ah bu ko defee ñu tànn ceeb gi na ci alquran wax ni ci ban aaya bi commencé kulu wasrabu xataa yatabayana lakumul xaytul abyad minal xaytul aswad minal kulu wasrabu xataa yatabayana lakumul xaytul xaytul aswad mi ngi baqara baqara aaya bi ñaata la 197 197 tan bi آية الذين جعل لكم من الشجر الخضر نارا واذا انتم منه توقدون من ياسين ياسين آية ياتا 118 تكي لما نوائي ما شاء الله ورحمة أمين الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة بارك الله غنينا سبحان مرو بارك الله إن شاء الله أيوة جوا جال جال جري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 لنا بالحق وهو الفتاق العليم قل روي الذين ألقتم به سرقا كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما للناس وبينات من الهدى والفرقان yàlla nee na alquraan weeru koor may anniversaire am yàlla ko jëlee ci lawxul mahfuuz wàccee ko ci baytul izza fi samaa'i dunya moo tax alquraan lu mu néew néew néew war nañ kaa jàng ci weeru koor ñu saxaaba omar radiallahu anhu aaya yii moo ko dugal ci lislaam moom ko déggee ci sëram saydatuna fatima mu ne kan moo wax wax ju rafet ji ñu ne ko wax ju rafet ji ñoo ko wàccee su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wajadu fi ixtilaafa kasira su ngeen seetloo alquran ak ni mu jubee su jege woo ci keneen ku yàlla ay wuute yu bari dina si am الذي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونحوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا يا يعلم وحي النبي صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد ndax gis nga li la won ci voyage bi ay natou dong la pour ñi gëm dëgëral seen pas-pas waaye ñi weddi ñoo ngi naan ci benn guddi bi mu ni dem na fi isra wal mi'raj jiite fi mbooleem yenent a ah, loolu du dëgg si lañ daal di dem seeti seydina aboubacar niko ko ndax dégg nga li sa waa ji wax aboubacar ni leen lu mu wax ñu ni ko ci guddi gi dem na fi isra wal mi'raj jiite fi mbooleem yenent aboubacar ni fa in kaana qaal faqad sada Hallelujah. ak a xuloo te kat joxe naa bépp misaal buy tax a gëm ci biir alxuraan Bismillahirrahmanirrahim. بغال ني داف لو باخ الاك سين اجال مول خار

sëgg bi defuma nii parce que su ma defee nii moom empêche mënu ma dóor tuur topp dóoral fii c'est bon kon maanaam su may wàcc topp une deux gis nga carrément téye sama garde garde bi su ma ko téye nii garde su ma ko téye nii automatiquement garde su ma ko defee sama garde nii man mën naa ko riposte si trois trois coups le premier naa ko dóor fii wàcc deuxièmement naan ak taawam bi ça va alors demal voilà donc xam naa encore une deux trois et quatre ça va léegi moom mooy defar. jënd ba. Gracias. X. Thank you. спортсмен иски йой аян шудан не аич не сан аич не аич не сан 1 2 3 4 5 H, N, S, çıkardı. Proši. Vyzrej. Joj. come On On avance, get Guérin bras Jaksuki. Un, deux, trois qui aille. Mawati. Un, deux, trois. Mawati. Chitouke konkutu. Ishi. Ni. San Konkursu Mawate 1 2 3 Mawate Shito Ayonuke en Konkursu 1 2 3 Mawate 1 2 3 Mawate Maimpi 1 ma woote un ni san ma woote manju komay un deux trois ma woote un deux san ma woote yame yasimen ci yooy ayan sandan Üç. İki. Üç. Ne? Üç. Açı. Aç. Ne? Aç. Ne? Sen. Aç. Ne? Aç. Ne? Sen. Aç. Ne? Aç. Ne? Aç. Ne? Sen. Şey. Salut d'avance. Première technique. Un. Deuxième. Un. mak mak mak mak Mau aja nyari, tensi di dalam kerajaan. Apa yang mau saya lakukan? Saya tidak akan menjadi kawan. Saya akan menjadi kawan.